asalaamaaleykum euh, mbokk internet Sénégal yéen a ngi ci seen euh, entretien face à Ousmane Sarr mouvement euh, nitu dëgg mu ngi nekk foofu membre la fa ci mouvement nitu dëgg valeur bu Abdou Karim Gueye xorom xàq tey boo leen gisee ñu dalal ko ci plateau Sénégal yi mooy dafa am ñoom lu ñuy waajal lu ñu naan grand offensive pour la libération des détenus politique ñu ci mel ni Cheikh Cheikh Omar Diagne ak Abdou Karim xorom xàq Euh, ñoomin Ami Dia ñu ñu jàppoon ci affaire force spéciale yi ci loolu la ñu war a débattre euh, Ousmane Sarr Sénégal nuyu na la ziar na la. waaleykum salaam maa ngi di delloo nuyo bi di leen ziar euh, di am mbégte ñëw fii seen entretien bi donc wax dëgg yàlla comme liggéey bu am solo bi nga xam ne yeneen kay def. di nuyu képp koo xam ne actuellement rek yaa ngi nekk di ñu seetaan waaleykum salaam. Euh, jërëjëf ñu démarrer directement waxtaanee ku mel ne Cheikh Oumar Diagne ak Abdou Karim Gueye xurum xaq tey yéen yéen a ngi bokk ci mouvement nitu dëgg di Abdou Karim Gueye xurum xaq euh, lan mooy seen état d'esprit en ce moment ci prison bi. Euh, waaw actuellement donc mën nañ ne alhamdulilah parce que par rapport ak prison bee ñu nekk donc mën naa ne nekkin ba ñu ngi si jàmm. Euh, parce que prison bu sebbi xutaan moom donc xaw na wuute trop euh, ak yenn yeneen prison yi parce que tey boo demee fu mel ni rëbës par rapport ak donc tàncaloo ba fa nekk ak euh, ni mu bëree ay nit donc ak prison bu sebbi xutaan xaw na tane tuuti mais aussi tamit prison moom donc neexul si benn côté même bu fekkee sax da ngay am tëddin bu jaar yoon donc di nelaw di def lépp sax taxul mu neex parce que ku nekk xam ne da doo amati dañ lay xañ say liberté Euh, mais nag wax dëgg yàlla par rapport ak ni ma leen gisee ak ni ma leen di déggee donc mën nañ ne alhamdulilah daal donc seen état de moral baax na parce que aussi tamit ak lu ñu mën a wax ku mel ne Abdou Karim Gueye moom je pense que moom même bu nekkoon euh, rëbës sax donc mu metti sax donc toujours day am moral parce que yaakaar naa ne tàmm na ko te aussi nit bu fekkee ne li ngay def da nga koy def jubli si jaamu yàlla euh, jàpp na yow métit bi sax dootoo ko yëg ni ko nit di sentiré je pense que kooku toujours rek day am moral te Abdou looloo ko dal mooy que moom lépp lu mu nekk lu mu métti métti rek du ko sentir parce que lim si sentir lenn kese la mooy day liggéeyal aw askanam day xeexal aw askanam ba dootul sentir métti bi nga xam ne donc. mi kañ nga ko gëj a gis wala kañ nga ko gëj a dégg. waa démb rek dégg naa ko démb mm-hmm. rek déggante nañ euh, téléphone donc mm-hmm. tombeek ma nekkoon euh, commissariat quatrième waroon dafay enquête par rapport ak suñu manifestation bi. Mm-hmm. Euh, wax dëgg yàlla déggante nañ téléphone man ak moom donc woo na ma ñu waxtaan lu bëree bëri quoi. ñoom ñu ngi leen arrêté woon ci. dese ku mel ne imaam Aliou Ndaw yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana eh, ñoom ñu génnoon def eh, ay sorties ginnaaw ba loolu amee ku mel ne Abdou Karim Gueye xurum xàq doon accuser état du Sénégal ci deewu ku ñuy ndax imam ali Ndaw ku mel ne aussi Cheikh Omar Diagne moom it eh, déggoon nañ ko muy demander autopsie mm-hmm. est-ce que gisoo ne aussi ñoom dañu dem wax lu ëpp Euh, non xam nga wax lu ëpp ñu bëri parfois dañuy li ñu xam lan moo waral dëgg-dëgg arrestation Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne euh, parce que li tax ñu arrêté leen li ñu wax mooy donc ñoom waxuñu ne Euh, état moom moo rey imam mais dañu ne état am na si part de responsabilité ginnaaw bu imam génnee àdduna. mais vidéo bi ba ñu ko dégloo Abdou Karim dafa wax directement que ne lépp lu dal imam Alioune Ndao état mooy responsable. waaw état moom moom moo tax loolu laa wax ma ne la état am na si part de responsabilité. part de responsabilité boobu noonu waxul part moom dafa ne état mooy responsable. waaw état mooy responsable. ba léegi xam nga état moo gàddu lépp. c'est ça ku nekk ak ni nga koy déggee. Mhm. état moo gàddu lépp parce que tamit dañuy fàttali si ginnaaw tuuti ne imam Alioune Badara Ndao dafa nekk koo xam ne dañu ko fekkoon muy jàngale alxuraan. Mhm. donc ñu xam ko si jàngale ak xutba donc di jiite jumaa mhm. bi ñu ko fekkee si loolu nag ñu jàpp ko Euh, di ko giñ mbirum terrorisme mhm. bi ñu koy giñ mbirum terrorisme tëj nañ ko trois ans après ñu xëy benn suur rek donc bàyyi ko ne ko la doon toppee yépp dara amutu si maanaam setal nañu la mais nag si biir trois ans yooyu noonu imaam Alioune Badara Ndao moom moo waxal boppam ne dañ ko doon torturer si biir kaso bi te avant sax si kaso bi gendarmerie bi nga xam ne fa la njëkk a jaar parce que bu leen fàtte ne imaam Alioune Badara Ndao def nañ ko garde une liggéeyee dootoo gisati dara maanaam day lëndëm cruise ba pare ñu ñu ñu ñu amplifier ko ba nga xam day mel ni ay yuuxu ay ay salir maanaam luy yuuxu luy sab si biir néeg bi di la sonal ba dootoo déggati day dem ba di jàpp sa bopp bi da nee na moom day dem ba bopp bi tàng jëri ndax euh, euh, loolu di yuuxu di ko sonal si biir kaso bi euh, aussi tamit bi ñu ko jëlee foofu ñu placé ko sous mandat de dépôt ku nekk xam ne Imam Alioune Badara Ndao du campagne rek la def dem na prison bu Ndar dem na prison bu Cap Manuel presque prison yi nekk Sénégal yëpp jaarale nañ ko xam moom la dund foofu bi si mujj muy euh, euh, euh, camp pénal mm-hmm. mais camp nee na waxuma la Euh, waxuma la xet gu bon bi nga xam moom moo nekkoon chambre ba nga xam ne garde pénitentiaire bu ñu ko doon indi lekk du ñemee dugg si biir chambre bi si bunt bi la taxaw ndax xet gu bon nga fa nekk mais nee na xet googu noonu dafa dem ba weñ yi doon nga xam ne doon naaw si biir chambre bi sax dañu doon wadd di dee ba pour mu am preuve day jël ay mbuus muy for weñ yi di sol bu visiteur am ñëwee mu wan ko ko ko gis nga li ray weñ yi nii waxuma doomu aadama te nee na dañuy def ay système biir chambre am maam dañuy jekk-jekk tàngal ko jër ba nga xam ne euh, yërëm bi day tooy xëpp ndax ñàq da koy summi mu xooj ko si ndox mu weñ ko mu solaat ko jékki-jékki une minute yëre bi day woowaat koogu ndax tàngaay bu metti bi ñu jekk-jekk sedd laa néeg ba mu sedd guy ba nga xam ne donc day liw mais ku dund loolu boole koog ñu lay teg ay laser parce que imaam nee na même laser yi nga xam dañu ko doon teg si biir prison bi dem na ba toog këram saalum sax di sentir ne laser day tegu si yaramam mais loolu loolu ki ki ñu def loolu noonu mu dem ba génn prison sax li ñu ko doon def si prison mu koy sentir si yaramam mais kooku bu sa bu sa jëlee mu feebar donc man ñun am nañu en tout cas ku nekk ak sa xelu mais mën nañ ne imaam li tax feebaram nii li ray yaramam nii ba mu feebar lii état am na si responsabilité parce que lan moo tax mooy moom moo ko tóotiree si kaso bi ba mu jëlee si feewar boobu feewar boobu nag bokk ko si li ko topp ba ni mu génnee mais bu génnee après imaam toog quelques instants après mu am feebaru loxo buy metti loxo buy metti mu dem hôpital def fa deux jours après ñu ne imaam mi ngi dans les comas nelaw na une semaine ñu xëy xëy benn jour ne imaam dee na mais c'est parce que loolu nag Euh, xëy na Abdou Karim Gueye ak ni mu jege woon imam Alioune Badara Ndao dem ba imam daf ko jàppe woon comme doomam parce que bu leen fàttali ne bi ñu jàppee imam Alioune Badara Ndao kenn ñëmu si woon wax Abdou Karim rek moom moo doon jug guddeeg bëccëg mhm. di si xeex di si def émission donc ba tax tey ñu bàyyi imam Alioune Badara Ndao kooku xëy na émission émission boobu noonu di ko jàpp xëy na mën na ko mën na mën na ko yóbbu si dimension boo xamante ni nii mais loolu mu wax rek loolu mënoon wax te aussi la demee parce que dañu xalaat ne état am na si noonu la demee ak réellement noonu la demee aussi c'est pas la même sos tey est-ce que responsabilité boobu imam Ali Ndaw ji eh, kii jël autant pour moi Abdou Karim Gueye jël wax ko est-ce que tey ji nga jël responsable wax la même chose que moom non man responsabilité bi ma si jël man en tant que personne de Ousmane Sarr bi ma si jël mooy état bu Sénégal am na si responsabilité mhm. léegi nag responsabilité boobu noonu si dañu nekk si dëkk boo xam ne état de droit la dëkk bu démocrate mais aussi am liberté d'expression liberté d'expression moo may may ma ne lii kat bu dalee bu dalee ci kaw nit kii te nit kii ñu def ko lii ak lii état am na ci état li mu war a def mooy mu mu mu génn démentir wala mu leeral ka ne amu ci responsabilité wala mu woolu nit ki ne ko ah nee nga état am na ci responsable lan moo waral responsabilité état boobaa man ma ne ko ah lii ak lii moo tax ma yaakaar ne am nga ci responsabilité moom moom dafa war a leeral mais nag war a leeral warul tax nga jàpp nit ki indi ko tée ko ci bi bientôt mu def lu ëpp un mois nga yóbbu ko instruction mandat de dépôt mais ba léegi te mënoo mënoo wax ne nit ki lii nga koy toppee mënoo sax dem doyen registre déglu ko ñu xam li ñu koy toppee mais lu dul dañ koy yóbbu instruction rek après fàtte ko foofu noonu c' parce que problème bi xam nga instruction aussi bu ñu la fa yóbbee dañuy ubbi information waaw infor xam nga dañu waxante dëgg quoi parce que pour man li ñu jàppee Abdou Karim Gueye information judiciaire amu si wàll xam nga la moo tax amu si wàll hmm. parce que nit ki danga ko jàpp nga ne ko lii nga nga koy toppee maanaam nga ma toog si plateau télé ma wax benn wax hmm. ñu ñëw jàpp ma ne ma lii nga wax nii lañu lay toppee mais lii ma wax noonu bu ñu may toppee mais dañ ma jàpp flagrant délit parce que franc grand délit bi mooy ñëpp xam nañ ne lii lañ may toppee dama ko wax publiquement laa ko wax mais loolu bu ñu ma si jàppee li ñu war a def mooy dañ ma yóbbu war a yóbbu franc grand délit ñu àtte ma ñu wax ñaata lañ may tëj wala ñu wax ba xam dañ may bàyyi mais le fait nit ñi wax loo xamante ni franc grand délit la nga jàpp ko yóbbu ko institution loolu mooy wane ne kii danga ko bëgg a tëj si kaso ba heure bu la neexee nga bàyyi ko mais nekkatul na yoon ngay topp parce que tamit dafa am benn système boo xam am Sénégal léegi doon lu doy waar mhm. bi mooy bërki démb lañ fi jàpp kan Kalifone Sall bi ñu ko jàppee lan lañ ko yóbbu ku ku et blessure dañ ko doon topp volontaire ñu yóbbu ko flagrant délit une semaine après ñu àtte ko bi ñu ko àppee tëj ko 6 euh, mois 1 mois ferme mais bientôt mu génn ci biir kaso bi mais lan moo tax bu ñu jàppee ñeneen ñoo xam ne xeex état ñu jàpp leen flagrant délit ñu leen di yóbbu la nekk leen jàppee aussi du benn lan mooy wuute lan mooy différence xam nga tey ku mel ni euh, Kalifone mhm. Euh, ba ñu koy jàpp. Mhm. dañ ko jàpp parce que dafa am ab xale bu jigéen bu ko tuumaal bu ñu wax mhm. ajaa caare. Mhm. mu plainte ñu jàpp ko topp ko ci lool. mais bokkul Abdou Karim Gueye Xurum Xaq institution la attaqué. ku mel ni Cheikh Oumar Diagne aussi institution la attaqué. donc quand on attaque l' li ciy ñëw ak boo attaqué nit yow ci boppam xam nga ne du benn. waaw xam nga xam nga xam nga institution d' abord euh, pour ay nit man la jox cër man la respecté mooy. ki nga xam ne moom mooy incarner injonction muy le président de la république moom moo war a respecter li nga xamante ni mooy code ak sàrti nday réew mi respecter constitution bi mais bu fekkee dañu dem ba gis sim réew ne président de la république respecté tul bi li nga xamante loolu mooy sàrt yi ko lié ak ko mais boobaa tamit day day day ñàkk respect si si bëtu nit ñi donte ne digaluñu kenn ka ne président de la république waruñu ko respecté wala injonction moom mooy incarner institution mu respecter d'abord institution bi bi aussi tamit moom ñu mën ko respecté mais mënuma comprendre ñu ne Abdou Karim Gueye dafa attaqué institution bi Cheikh Oumar dafa attaqué mais lan mooy attaqué liberté d'expression pour man pour man li li ñu wax dañ ko waroon jàppee comme liberté d'expression mooy que ñoom dañu wax li ñu xalaat ne nii la demee li ñu xalaat ne nii la demee nag ku nekk am nga ci droit état na génn mu leeral wala mu jàpp leen après mu woo leen ñu jox ko ay preuve mais ñoom cherché wuñu ay preuve mais li ñuy cherché mooy pour mën leen a denc ci kaso bi pour mën a camoufler li nga xam mooy la mort de Imam Alioune gis nga ma wax la ko fii nga xam ko mm-hmm. mooy état lenn kese la bëgg mooy li nga xam ne moom mooy deew Imam Alioune Badara Ndao te coow li commencé woon a jug te ñu xam ne Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne bokk nañ ñi nga xam ñoo gën a mieux placé pour wax si te ñoom parce que ñoom ñoo nekkoon ci biir hôpital bi bu leen jàppee tëj leen si kaso bi au lieu ñu naan Imam Ali Badara mais dañ naan libéré Abdou Karim Gueye ak Cheikh Omar Diagne léegi bi si benn côté mooy au lieu que wax euh, Ali Badara Ndaw kenn doodu ko wax mais li ñuy wax mooy libéré Abdou Karim Gueye libéré Cheikh ji foofu le foofu kese la mais du dara loo xam li ñu leen jàppee yoon la du dëgg du yoon lu dul jéem a camoufler li nga xamante ni mooy deewu imaam Alioune Badara Ndao mais est-ce que tamit on est d'accord que liberté d'expression bu nga tudd sànq nekkul aussi wax loo xamante ne moom nga am envie wax wala nekkul que lépp loo bëgg a wax nga wax waaw euh, li pour man liberté d'expression ni nga xam ne noonu la ko constitution bi waxee mayee ko chaque citoyen mooy nga am sañ-sañu wax li nga xalaat ci biir réew mi te ko mais pas tooñ non mais man gisuma ci tooñ gisuma ci mooy tooñ tooñ mooy lan mooy wax sa xalaat. accusation sans preuve. mais mais est-ce que amuñu preuve. kon nañu génnee seen i preuve. nee naa non non déggoo ma ne la gars yi déggoo ma ne la <laughs> état état seetsewul ay preuve de. Mhm. seetsewul pour leeral de état li muy mooy naka laay fexe pour tëj kii si kaso bi. xam nga loolu moom Sénégal mooy dañuy jàpp nit. day jàppuñu si dara dañu téye pour camoufler dañu leen a pour camoufler li nga xam ne mooy deew imaam Ali Badara Ndaw mais téewuñ leen si dëgg téewuñ leen si yoon te dama gëm ne bis bu ñu bu leen yàlla nattoo ba ñu yóbbu leen si siis boo xam ne siis bu indépendant la mu leen di déglu suur boobu la leen di bàyyi ñu dem ñibbi seen kër parce que dañu xam ne li leen fi indee tegul si dëgg tegul si yoon mais gëm nga ne am na ay juges yu indépendant ci réew mi waaw parce que aussi tamit parfois dañ koy wax di dal ci kaw magistrat yi di dal ci kaw siis yi xam nga bu ñuy wax parfois ne donc siis siis dafa jeng mooy que ne dafa am euh, euh, ñetti pouvoir moo am ci li nga xam mooy ci ci ci code bi. Mhm. muy pouvoir exécutif pouvoir judiciaire ak pouvoir législatif. Mhm. mais dañu seetlu ci ay at ci ginnaaw que ne Sénégal benn pouvoir rek moo fi am muy pouvoir exécutif maanaam mhm. pouvoir judiciaire bi amatul pouvoir parce que ministère de la justice kan moo koy nommé président de la république. procureur de la république kan moo koy nommé président de la république euh, doyen juge d'instruction kan moo koy nommé même même même même yoon bi la. léegi nag loolu bu amee ki nga xam ne moom moo la nome teg la fa nga koy liggéeyal pour man kooku lañ gën a jox cër jox gën ko jox gëdd que li nga xam ne loolu la loi bi wax ak li nga xam loolu la code bi wax. parce que man dama gëm ne magistrature ak ni mu méttee. Mhm. nga jàng. jaar ci école jaar ci école publique ñi jaar ci privé dem ba may li jaar sa jaar nga daj yëpp pour représenter li nga xam mooy la justice li nga xam ne moom mooy yoon ki nga xam ne moom moo koy incarné wala doon ni war na doon nit ku jub nit ku dëggu nit koo xamante ne nii day def li muy def rek si ak aqulaahi taxalaam te yàlla rek tax ak aussi li nga xam ne loolu moo ko tënk si li nga xam ne moom mooy luwaa yi mais paaka muy def loo xam ne luy neex benn nit la parce que dañu gis ne nag depuis certain temps justice Sénégal ñu wax ko te dee mooy kenn dañu gis ne justice kumba am ndey moo fi am ak kumba amul ndey parce que dañ fiy jàpp ay nit ñu ne lan ñu ne dañu dañu wax lii état mais jàpp nañ fa ay ñu def lu gën a garaaw loolu noonu lu gën a garaaw mooy leen jàpp nañ fa indi ñu def crime économique ñoo xamante nii li ñu def mënoon na daaneel économie gu Sénégal bi yëpp boo xam ne yow mii mën nga si dem kaso keneen ak keneen mën na si dem kaso xam nga pourquoi mooy tey ji imagine nit yor ay faux yoo xam ne 32 milliards la 32 milliards yooyu noonu imagine mu dem jël benn milliard mu weccee ko si banque wala mu weccee ko feneen ak feneen yow nga dem bitim réew liggéeyi ba ñëw sa réew war a liggéeyal sa réew nga jël say ko ko si si biir banque bi wala si biir marché bi jox la faux yooyu noonu nga dem ci borom bitik jënd fa mu gis ne faux billet nga ko jox mu wala la gendarmerie bu ñëwee yow taf parce que dañuy fekk si yow xaalis phobie boo xam ne bëri na bay bëgg a dee léegi ñaata nit ñoo dem kaso si loolu noonu te tey jii ki def loolu mi ngi si mbedd mi di dox ay yoonam mi ngi dox ay soxlaam muy bugaal seli mi ngi fii géej waaye toog di dox ay soxlaam lan moo tax ñu bàyyi ko parce que neen dafa am jabet dama ne loolu ay tappale la am na ñu nekk si biir kaso bu Sénégal dem nañ ba am wéradi yaram ñii sax dem ba am wéradi xel te kenn bàyyiwule ñu ngi leen teg si kaso bi liberté provisoire la nekk mais liberté provisoire mooy liberté totale fii si Sénégal man mii di wax ak yow 2020 bi ñu jàppee giri palais bi man Guy Marius Sagna keneen a keneen ba léegi maa ngi si liberté provisoire te diggante bi même soo jàppaan nañ ma encore at ma beneen liberté provisoire maa ngi ñaari liberté provisoire yoo xam la masa woo si ay liberté provisoire fii Sénégal naan la kaay nga taxaw devant la barre amul liberté provisoire mooy liberté totale Bougazelli dañ ko bàyyi may ko liberté totale te maa la ko wax xool gars yi duñ duñ mës taxawalaat dossier boobu noonu parce que lan parce que dafa far ak ki nga xam mooy le président de la république fii Sénégal li fi am mooy boo àndee ak président de la république defal lu la neex waxal lu la neex du mujj fenn bërki Dembo Ndiaye doomu Mariama Sarr ministre dafa yor benn oto boo xam oto présidentielle la amul woon permis bi mu dawal oto bi mu am benn benn moto de moto de kii euh, mutaar yi nga xam ñoom yor sécurité moom la moom la fiir bi mu ko fiiree taxawul dafa daw bi mu dawee encore mu dem fiiraat keneen bi mu ko fiiree biñ bi ko police jàppee topp ko ba jàpp ko da dàq ji ko ba pare arrêté ko bañ ñu dàq ji ko bi ñu ko jàppee yóbbu ko fi nga xamante moom mooy commissariat pourtant ba ñu ko fa àggee guddi googu fanaanul foofu parce que lan parce que doomu Mariama Sarr la bi bi ñu waxee dañu ne après ki mu njëkkoon a fiir kooku nee na baal na ko ñu ne deuxi ki nga xam ne moom la mujjee fiir muy deuxième bi ñu ne non kooku kenn identifié wu ko dafa def délit bu garaaw mooy kay di dawal sans parce que déjà loolu rek dawal sans permis de conduire mais loolu loi daf la teg ay daan yu méttee métti mais lan moo tax kooku tëj tëj fanaanul fi nga xamante ni mooy commissariat parce que doomu ministre la léegi nag loolu moo am Sénégal mooy gis nga président de la république seen ay doom seen ay jarbaat seen ay ministre seen ay doom seen ay jarbaat seen ay mbindaan ak képp koo xamante da nga bokk ci seen famille billaahi wallaahi fii Sénégal lépp loo mën di def baal nañu la si si toppewu la dara parce que yow da nga ànd ak président de la république loo léegi nag loolu moo waral mer gi ñu mer que ne si si amatul si réew mi mais loolu moo ko waral parce que dañu gis ne si si bi dafa jeng aussi seen xeex yamul euh, ci Abdou Karim Gueye ak see euh, Omar Diagne mhm. am na aussi ñeneen lu ñu jàppoon ci affaire lu ñu tuddee force spéciale mhm. muy ñu mel ni ñoom Amidia ñoom Mor Gueye ñoom Ibrahima Diédiou euh, ak ñoom Babacar Ndaw liste bi bon bari nañu. Mhm. Euh, am na aussi ñu ñu jàppoon ku mel ni Papito Kara ak Ousmane Diagne ci mhm. affaire yu ñu leen kii ci média yeeg tout ça mhm. donc ñooñu aussi ban posture ngeen engagé pour ñoom. waaw xam nga boo xoolee xeex bi ñuy xeex ñoom ñëpp dañ leen si boole donc di leen xeexalandoo. xam nga man affaire force spéciale yi Sénégal bu ma ko déggee ay ree sax la fa may def parce que parfois nga gis ku def si Facebook ne. gëmoo force spéciale dafa am quoi non amu fi. amul da ngay gis ku jël photo Amidia. ak photo force spéciale ñi nga xam ne ay ay ay si armée bi la ñu nekk. Mhm. ne voilà lii mooy force spéciale Sénégal ak force spéciale euh, Amérique. Mhm. te pourtant Sénégal fii am na ay force spéciale am na ñan ñooy force spéciale yi. Mhm. mooy ñi nga xamante ni force spéciale benn unité spéciale la. boo xam ne ñu ngi fii Thiès la ñu basé wu. seen entraînement bokkul sax ak entraînement militaire yi bokkul ak entraînement police ak gendarmerie parce que tellement que ñooñu unité spéciale la kenn du leen gis. léegi nag bu ñu jëlee ay nit ñoo xam ne benn groupe de WhatsApp lañ tijji. tuddee ko force spéciale ngir lan ngir bëgg a xeexal seen réew parce que parfois il faut que ñu xam ne. li waral yenn euh, tur yi di ñëw. lan mooy obje objectif seen objectif du woon pour taal dëkk bi mais seen objectif comme dégg nañ ne force spéciale benn tur bu raar la moo tax ñoom ñu tijji groupe whatsapp bi tuddee ko noonu ñoo xam ne spécialement ñoom dañuy xeexal seen réew kese loolu moo leen tax a jóg fu group whatsapp boobu nag moo am ay góor am ay jigéen Ibrahima Diédhiou bi nga xam ne jàpp nañ ko te bu yàggul doomam génnaat na doomam bu am 5 ans mu fekk ko ci biir kaso ma koy jaale waat encore Ibrahima Diédhiou moomu man ak moom dañu doon ànd lu bëri bëri si ay manifestation mu doon nit ku pacifique nit koo xamante ni nii billaahi wallaahi musumaa gis sax fu booy demee di taal pënë wala ñuy sànni xeer wala manifestation interdit ba mu dem fa tellement que nit ku pacifique la koo xamante yooyu yoonam nekku si ñu jàpp ko tëj ko si kaso bi dañ koy toppee force spéciale te jii Amidia lan lañ koy toppee benn transfert d'argent boo xam ne benn 30 000 francs ak benn 20 000 francs ñu ne daf ko doon jox ay nit yoo xam ne dañ doon jug pour taal dëkk bi dëkk bi nan lañ koy taalee 30 000 francs cocktail Molotov mooy lan mooy li nga xam ne tey jii France jii nii rek bu àggee ñuy manifester gilets jaunes yi da gis ne bu leen policiers yi di dóor ay lacrymogène cocktail Molotov yooyu noonu lañ leen di sànni. Hmm. cocktail Molotov mooy yi nga xam ne moom mooy nekk ci butéel yi ngay def essence ci biir taal ko boo sànnee fépp foo ko sànni rek bu daanoo rek day tàkk. loolu mooy cocktail Molotov mais loolu naka la mën a tax ne Sénégal ñu jël leen ne leen dañ doon waaj a song ay ay centrale électrique bu Koonoon dañ doon waaj a song dañ doon waaj a song benn kër euh, benn kër kilifa Amidia bi ñu ko jàppee yóbbu ko fi nga xam moom commissariat central dèjà moom PV bi nga xam moom lañ ko war parce que PV da ngay ñëw ñu enquête la defal la PV wax li nga wax ak li ñu lay li pose question yi ñu la posé ñu wax li ñu lay toppee ñu bind ko si PV bi mais dafa fekk PV mu teg bu mu ñëwee ñu ne ko ñu ne ko liiral mu liir ñu ne dañ doon préparer attentat dañ doon préparer euh, song benn kër autorité mu ne leen ban kër autorité gars yi ne ko non xamuñu ko mais dañ ko doon waaj a song mu leen non non loolu amul parce que ñun xanaa bu ñu doon bay songu kër diw sax mais dinañ xam ne kër diw lañ jëm dinañ xam ne kër diw lañu jëm dinañ xam turam mais naka la ñuy waajee song benn kër jàmbur te xamuñu dèjà kooku turam nan la tudd c'est parce que ki nga xam mooy Pape Ousmane Seck muy ra muy frère de Akhenaton lan lañ ko jàppee benn 60 000 francs boo xamante ni dañ ko ko envoyé te loolu il faut que ma def si ay leeral mooy que ne ñu bëri dañ jàpp ne li ñu koy toppee xaalis boobu daf ko defoon bi nga xam mooy manifestation bi ñu autorisé wul woon te mu amoon xeex fii si dëkk bi. li ñu koy 60 000 li ko waral mooy manifestation pacifique bi nga xam ne Yewwi Askan ñoom ñoo ko organisé woon te ñu bëree bëri jóge woon si ay dëkk ay kaar ñëw si manifestation bi. loolu moo war waraloon ñu envoyé ko 60 000 francs ngir ñi nga xam ne ñu ngi si village yi te bëgg a ñëw te mënuñu ñëw mu envoyé leen paas ngir ñu mën a ñëw te loolu nag ku nekk ku nekk am nga droit dëkk boo mën di jógee nga bëgg a ñëw si manifestation Dakar te amoo paas ñu yónnee la paas nga ñëw wala ñu yónnee la kaar nga ñëw si loolu lañ ko jàppee ñu ne kii waaw xaalis boobu daf ko doon financé ay nit pour ñu ñëw taal dëkk bi mais loolu naka la mën a nekkee léegi léegi ñi wax ne lépp luñ ci am léegi ñi mu doon envoyé xaalis moom ñoom ñoo ko doon ñoom la ko doon envoyé pour ñëw taal dëkk bi léegi ñooñu anañu xanaa ñooñu kenn du leen jëli te na leen ne léegi da nga a ne kon lépp lu ñuy wax ci dossier bi dara amu ci force spéciale yi hmm. pour moo wax la réglement de compte politique la. Mhm. contre ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko. Mhm. nañu ko wax te dee réglement de compte politique kese la mais dama gëm ne force spéciale amul ci Sénégal te li ñuy wax. amul nañu bàyyi doomu jàmbur yi ñu dem ñibbi seen kër parce que tamit mënuñu continuer ñuy jàpp ay nit di leen giñ ay terrorisme di leen giñ ay forces mm-hmm. spéciales di leen tëj ci bu ma wax la loi terrorisme bi nga xam ne ñu ko doon voté mm-hmm. boo xoolee si laa jugoon man ak Abdou Karim bi ak waa nitu dëgg dem fi nga xam mooy buntu assemblée nationale sur mm-hmm. boobu la jàpp yóbbu ñu camp Abdou Diassé ñu torture ñu foofu noonu ngir lan ngir dañ doon bañ loi nga def léegi nag waa boobu lañ leen bëgg a toppee bëgg leen tëj ci kaso bi jëmale fu kenn xamul nañu leen libéré ñu dem ñibbi seen kër léegi loolu yan matuwaay ngeen ci jël yoon waaw xam nga ginnaaw ak lan ngeen di waajal euh, defoon nañ benn manifestation je pense que semaine bële passé place de l'obélisque léegi nag dañu gis ne xëy na euh, affaire yi amul benn évaluation donc euh, malgré ñi ngi wax mais day mel ni état bi dégguñu léegi nag ñun waa COLIDEP muy collectif pour la libération des détenus politiques mhm. dañu teg benn grande offensive grande offensive mooy dañu ne vendredi euh, le 21 octobre bii di ñëw. Mhm. donc dañuy dem fi nga xam moom mooy place de l'Obélisque def fa manifestation pacifique jugee fa dox ba rond-point BCEAO bu ñu fa jugee nag le 21 te bàyyiwuñu leen le 28 bi si topp dinañu dem fi nga xam moom mooy université Cheikh Anta Diop ba poste Médine bu ñu leen bàyyiwul nag vendredi bi si topp le 4 euh, novembre dinañu dem place de l'Indépendance ñu def fa sitting te nag aussi may wax ne place de l'indépendance ñu bëri boo ko waxee rek na naan la non duñ ko autoriser place de l'indépendance arrête Ousmane Ngom mais arrête Ousmane Ngom. li may wax li may wax sànq si loi loi Sénégal demande bi. non demande bi dañ koy dugal. Mhm. ñun xam nga ñun dañu nekk ay nit yoo xam ne. Euh, doxuñu si dara loo xam ne luy jalgati yoon la mm-hmm. ñun lépp lu ñuy def rek dañuy topp li nga xam ne loolu la ñu constitution may constitution nag lim ñu may mooy bu ngeen di def manifestation ngeen jël lettre d'information ñu bëri dañu yaakaar ne da ngay def euh, demande ngay def mais defuñu demande de lettre d'information la constitution wax ne da nga koy dugal ci taable préfet pour yëgal ko ne ko kat suur tel damay def mars jugee fii jëm fii préfet ñaari rek la am pour interdire manifestation mooy que ne amul be amul effectif ay policiers yu doy yoo xam ne mën na laa encadrer wala mu am euh, réel de trouble à l'ordre public te trouble à l'ordre day doon loo xam ne dangay xam ne lii trouble à l'ordre public day am préfet ñaar yooyu la am pour interdire. mais dañu gis euh, fii Sénégal mais mais mais gisoo ne aussi manifestation tey bu amee. université tali boobu jëm euh, poste Médine. Mhm. foofu mënul bañ a am trouble à l'ordre public. mais pourtant pourtant pourtant deux mille deux mille vingt def nañ manifestation université dem ba poste Médine bi ñu jàppee Guy Marius Sagna te pourtant def nañ ko si jàmm ak salaam amul benn trouble à l'ordre public. def nañ université jóge nañ aussi fi nga xam moom mooy station foire dem jaar buntu camp pénal dem ba Liberté 6 te pourtant amul benn trouble a defaat daal parce que manifestation bu ñu autorisé manifestation bu ñu autorisé mhm. doo mës a dégg ne am na coow doo mës a dégg ne am na trouble à l'ordre public te aussi dafa am loo xam ne il faut que ñu wax ko Sénégal mooy sànq li ma doon wax ci wàllu loi yi ak ñàkk respecté institution yi parce que mënuma gëm benn benn ministère boo xam ne fi nekkoon 2011 muy Ousmane Ngom Ousmane Ngom bu bañoon na nit ñi manifester fi nga xamante ni mooy Dakar Plateau mu génn benn arrêté ne diggante fii ak fii kenn du fi manifester te pourtant arrêté bi mu génne moom ministère kese la ministère lan lan moo ko tiim est-ce que ministère moom moo tiim constitution wala constitution moo ko tiim constitution moom moo tiim président de la république tiim ministère tiim peuple sénégalais bi yëpp mais bu ñu dee ba Sénégal benn arrêté ministériel ñëw tiim suñu constitution mais loolu day wane Sénégal constitution bi nañu waxante dëgg mais dañ ko def comme comme ñoom ñooy def lu leen ñu def ko lu leen neex ñu effacé ko c'est parce que loolu a jeex Sénégal mooy que ne arrêté Ousmane Ngom bi ay caaxaan la Macky Sall bokkoon na si ñi ko doon xeex 2 millions te dane woon bu doonee président de la république daf fiy génne arrêté Ousmane Ngom bi ay caaxaan la ay tappale la te loolu nag ñi ko siy xaar ba léegi te ba léegi defagu ko mais dañu gis ne ñoom bu ñu ñëwee lépp lu leen arrangé te jaarul si yoon dañuy continuer di ko maintenir ngir lan ngir mën a continuer di maintenir seen pouvoir ngir bañ ko manifester place de l'indépendance mais incha allahu rabbi de l'indépendance dinañ si nii wala si nalee. incha allah cinq minutes euh, moo ñu desee ci waxtu bi bëggoon nañ aborder yeneen sujet mhm. bon nañu dem euh, directement ci question troisième mandat bi. Mhm. gis nañ ne jamono ji euh, question troisième agité na lool ci réew mi te ba léegi nit ñi kenn xamagul position am. Mhm. ndax position Macky ba léegi ça reste mitigé du wax wii du ma wax no waa APR ku nekk ngi génn naan troisième mandat demande national la. ñuy laaj ci yéen lan moo ci seen position. waaw troisième mandat xam nga d' abord euh, président de la république Macky Sall euh, déjà le fait que nangu wut a leeral ba xam daf koy def wala du koy def rek euh, déjà dafa def haute trahison peuple sénégalais bi. aussi loolu nga ko tuddee surtout ñi nga xam ne dañu dee woon 2011 te nekkoon ak moom. tey jii ku mel ni Mamadou Diop bi muy bi muy dee place de l'Obélisque président de la république Macky Sall mi ngi fa woon yor maître kàddoom ak ay Marème Faye Sall ñoom ñëpp ñu woon foofu foofu noonu ak Moustapha Niass. mais Macky Sall doon xeex loolu am ñu jugoon di ko xeexaloo xeexle wuñ ko loolu sax mais moo ñëwoon ànd si xeex bi ngir xeex parce que moom da doon yuutu pour nekk président de la république. Mhm. di jàppale ñooñu ci xeex bi ngir ne troisième mandat du fi am lu nekk nag mu wax ko ci plateau télé yi tey ji kooku bu demee ba toog nekk suñu président de la république ñu koy laaj ba xam da ngay def troisième mandat mu naan du ma ne oui du ma ne non mais mu wax loolu rek man dama jàpp ne dafa def haute trahison. te aussi troisième mandat bi moom moo bindaat constitution bi kenn forcé wu ko mhm. Ismaïla Madior Fall le terre de la constitution moom moo moom moom bokk na si ñi ko bind bi mu ko bindee lan la wax dal na niil niil ne peut exercer plus de deux plus de deux mandats consécutifs mhm. kenn mënul def doo ñaari mandat yu tegaloo xam nga ñaari mandat yu tegaloo mm. nit ñi dañ naan am na ñoo xam ne waa APR gis naa leen ñu naan non mandat de cinq ans mandat de sept ans constitution waxul deux mandats cinq ans deux mandats sept ans déedéet de deux mandats consécutifs maanaam ñaari mandat yu tegaloo ñaari mandat am xoolal boo defoon benn un an def beneen quatre ans sax am nga ñaari mandat parce que le fait que mandat yi tegaloo rek kenn mu léegi nag waa APR ñoom bu ñu génne naan ay demande sociale ban demande sociale demande sociale mooy demande d'intérêt la du demande sociale de demande d'intérêt ama la mooy demande d'intérêt mooy APR dafa bëri ñoo xamante ni dañu dee politiquement parce que am na ñoo xamante ni nii jaratuñ dara si bëtu Sénégalais yi te gis nga bis bu fi mag Macky la jógee xam na ne dañuy torox parce que dee nañ pour mënatuñu am dara si politique gu Sénégal léegi ñooñu nag jaral na leen ñoom ñu joxe seen bakkan ngir mag Sall def troisième mandat parce que bu ko Macky Sall deful rek mooy ñoom torox nañ moo tax ñoom ñu génn ay Racine Talla directeur RTS ay ñeneen naan ay non Macky Sall même bu même bu même bu ko bëggee def donc jaral nañu parce que du ñu bàyyi réew mi muy dem ci ay loxoy nangam loxoy nangam te ñooñu yow ki wax naan bàyyi si loxoy nangam kooku moo leen gën fuuf gën leen a set je que li am mooy nañu bàyyi intérêt bi ñu xool lan mooy intérêt Sénégal ñu bàyyi intérêt personnel bi waa APR nag ñoom seen ay intérêt personnel la xool moo tax ñu wax waxi troisième mandat mais du pour intérêt Sénégal parce que boo fi toogee onze ans te defoo dara loo xamante ni nii askan mën nañ ci teg seen loxo ne ah yow kat góorgóorlu nga si lii fexe nga ba nit ñi euh, bu ñu feebaree mën a faju fexe nga ba nit ñi euh, bu ñu bëggee jàng dem jàngi bu ñu xiifee lekk bu ñu maree naan te Sénégal dama ne jamono bii rapport bi mënti wax aussi Euh, nit du toog 11 ans nga ne def fi dara. am na au moins quand même jox na ay jéego. jox na ay jéego mais uh-huh. jéego yi mënoon na gën a sori bu fekkoon ne ak am na li ñuy wax patriotisme. Uh-huh. tey jii bu fekkoon ne président am na lu ñuy wax patriotisme jéego yi doon na gën a sori. Uh-huh. mais dañu gis ne yu bëree bëri si wàllum xëyu ndaw ñi. boo boo xoolee ba si biir affaire de partisan lañ ko def mooy que ne diw moo ko jiite ay partisan ñu ngi nii ñu ngi si wetam ñoo koy politigal ñooñu laa koy jox. boo jëlee ak marché yu bëri ba dañu gis ne dañ koy def marché yaa ma neex te pourtant ñëpp mënoon nañ si ku ne di si gis seen bopp mais tey jii dañu ne rapport bi mujjee génn 2022 dañu ne plus de 1,5 million de sénégalais xiif mi ngi leen di yoot maanaam ndóol maanaam ñu lekkee duñu duñu bu ñu añee duñu reer mi ngi leen di yoot fii si Sénégal mais loolu noonu mënoon àgg. parce que Sénégal yàlla may na ko yàlla may na ko ressources yoo xamante ni moom directement ci dernière question bi. Euh, gis nañ ne tournée nationale yu Ousmane Sonko nekk di def. Mhm. Euh, premier jour bi fële ci mbuur dafa amoon foofu ay gàllankoor ak i gendarme yeeg yooyu ba ay euh, gaz lacrymogène jóg. Mhm. yéen ba ngeen la yëgee loolu information bi mu def ci yéen. xam nga ni mu def si ñun mooy ni mu def si bépp sénégalais bépp citoyen mooy que ne constitution dafa wax ne chaque citoyen sénégalais am nga droit. donc créer association maanaam wala parti politique mais aussi tamit condition daf la garantil donc nga mën a am droit di dem ak ñëw fépp ci territoire national bi Macky Sall de diggante 2008 ba 2011. non pour yow lan moo tax Macky Sall gagné élection yi nañu yam ci fee waaw foofu laay ñëw non dama lay jox non dama lay jox ay fee dama la bëgg wax ne la Macky bi mu bëggee gagné réew mi dafa dem mu wër réew mi ñetti yoon. te Abdoulaye Wade waxu ko dara léegi nag lan moo tax Ousmane Sonko jug ne dafa bëgg a def ne meeku wër Sénégal ñu ne ko doo ko fi defee parce que pour man pour man loolu rek doo day wane donc manque démocratie bi nga xam ne am na suñu réew mi muy Sénégal parce que Ousmane Sonko citoyen sénégalais la nekk sénégalais bëgg a yuutu réew yuutu réew mi bëgg a nekk président de la république dafa am droit lépp loo xamante ni yoon daf ko ko may ngir mu mën a jiite réew mi 2024 am na droit mu def ko comme ni keneen ak keneen amee droit def ko te waruñu ko xorñoo ñal beneen bi aussi mooy la gendarmerie parce que ñoom li ñu wax mooy lan mooy trouble gendarmerie dana leen fexe leen ba bu bu bu bu trouble am maanaam na leen ba maintien ordre mais nag man benn côté li ma may ma surxal ko tuuti rek mooy que ne gendarmerie wax dëgg yàlla man donc dama leen a naw dama leen a respecté te dama leen a jox cër parce que mosuñu dox si dara loo xam ne lu ñàkk fayda lay doon bañ nañ ko ba parfois bavure policière yi ngay dégg sax ñoom doo leen si dégg parce que ñoom toujours seen liggéey dañ koy teg si ordre teg ko si norme ñu doon ñu ñuy respecté fii si réew mi mais nag dañu gis ne depuis que général Moussa Fall ñëw mais dañu gis beneen xeetu gendarmerie bu bees mooy que dañu gis benn gendarmerie boo xamante ni donc au que mu nekk fi mu nekkoon respecté ordre yi nekk si côté askanam mais dañu gis ne gendarmerie boo xam ne day jàkkaarloo askanam di leen tiré ay lacrymogène te bu njëkk billaahi wallaahi Sénégal mën naa wax ma ne diggante 2012 ba presque 2019 euh, premier mandat Macky Sall mosuma gis gendarmerie mu tiré lacrymogène ci kaw mm-hmm. askan bi mais nag depuis que nag ñu nommé beneen général ba léegi nag nañ ko waxte dee parce nag ku ko wax tamit ñu ne la non da nga def lii wala da nga wax lii mais nañ ko waxte dee mais gendarmerie moom depuis Moussa ñëw moom wax dëgg man beneen xarkan mu gendarmerie laa gis te loolu nag maa koy ñaan général Moussa mu mu in mu delloo si xelam xam ne fi ñu ko teg général bi ñu ko teg teguñ ko fa ngir benn nit mais dañ ko fa teg ngir peuple sénégalais bépp te na fexte fexe mm-hmm. pour aar askanu Sénégal na fexe pour aar li nga xam mooy honneur gendarmerie te mu bañ a déshonorer li nga xam mooy la Ousmane Sarr ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo mu nga tàggu mbokk internet Sénégal euh, waaw maa ngi kontaan lool si dalal bi ngeen ma dalal donc di si amaat mbégte Euh, ak bànneex wax dëgg yàlla ndax euh, heure bu ñu bëggee wax xëy na di ngeen ñu may seen ay antenne pour ñëw mën a wax suñu soxla pour que ñi nga xam ñoom lañ bëgg a waxal ñu dégg ngir ñu mën ñu fajal li nga xam ne mooy suñu ay mbëbët loolu dañ ci am mbégte ak kontaante lool donc di waxaat askan bi rek euh, di leen wax ne vendredi le 21 octobre bi ñu jëm ñëpp nañu génn ñu ñëw place de donc ñu marche pacifique donc woo yeewuñu fitna woowuñu fa kenn muy ni fay xeer wala mu taal ay dañu bëgg képp kuy ñëw nga ñëw pacifiquement donc ngir ñëw taxaw yuuxu ngir autorité yi dégguñu ngir mën a libérer ñi nga xam ne jàpp nañ leen si kaso bi euh, waaleykum salaam wa rahmatullah euh, ñu rappelé mbokk internet yi yéen a ngi woon ak euh, Ousmane Sarr te mu nekk membre mouvement nitu dëgg valeur bu Abdou Karim Gueye xurum xak Sénégal mu ngi lay jaajëfal di la wax ne fii seen kër la saa su ngeen bëggee wax rek heure bu ngeen ñëwee les portes sont grandement ouvertes di jox dig daje mbokk internet yi ba beneen